yow lu ma lu ma bëgg a wax lu am. refoulement ci refoulement bi xam nga lu temps bi jeex na bu yàgg. sénégalais yi. wala turc yi. kuñ jàpp. bala ñuy def ak yow dara. hôpital lañ lay njëkk a yóbbu. ba dul la piqûre. non dañuy xool ba xam ndax am nga feebar buy wàlle am déet xam nga loolu c'est un peu délicat bëgguma ko sax wax bëri na sénégalais yu ñu indi fii nii xam nga lu tax ñu indi leen. Mhm. hépatite lañ amee. turc yi duñ ko baale. bugguma ko wax parce que ñoom duñ xam li ne ci seen rapport waaye man mii dem ci police bi buñ ma xoolee damay xam ne kii feebar bi moo tax te duñ la fa bàyyi dañu lay delloo si. Babacar. waaw non je succès diplomatique. waaw non Pape vraiment moi je voudrais quand même. Euh, mais loolu loolu boo ko waxee réew mi tas.